الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk soppe yi Yamutab Info TV Sénégal ndax ba ñu sant borom subhanahu wa taala way ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam الإسلام جيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام شهر مبارك ربي الأول النبي عليه الصلاة والسلام. tere si woon Mawlana Cheikh daal di ndokkeel bopp ci weer woowu ni muy ndokkeelee boppam nag mooy mbégte gi mu am ci weer wi ak weer wi def ni mu ko def boppam jàpp na weer wi daal weeram mais daan na tukki nag yenn si ay tukkeem lu muy sori sori daan wax ni xal bi dawaamen بمدينة أرغب شهر شهر الحبيب إذ أراه يقرب قول الشيخ دال بفويات كي فويات من دي سما قل ني أجو مدينة نينا كعمل الشيخ سقل بمول تحم أجو مدينة من شهر الحبيب غير soppe إذ أراه arahu gis naa ko yàqam ba mu ngi jege si loolu moo tax daal sama xol ومولد الشعب وحني وقد دنا ربيع غير الناس من واي واي ويروك ربيع ربيع غير الناس ويروك جنت من دي في دال جيغسنا من كعب مولنا الشيخ ويروك جنت من دي موي كان من بهجة النفس من بني إلياسي وكما يتارك كل دن بكن سمي mooy taarug dund sama waaye yeneen boobu daal mi nga xam ne mooy xayru nas yi mu ngi bokk ci bani Ilias sallallahu alayhi wa sallam wa tawar min am ah Muhammadu salili abdillahi dina ka am lastu an taazimi billahi mi na am ah nag maa ngi leen a bayloo xel kooku may wax ni weeram jege si na mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy Muhammad doomi abdillahi ndaxte bàyyam mu ngi tudd abdillah mi na waaye nag bàyyil xel ñenn i ci boppam dañuy wax naan gàmm bidaa la maa ngi leen di tontu di leen wax ne gàmm daal kuy wax bidaa la da nga jàngut xamut waaye wala su an taasimi billahi mi naa man ka duuma koo xam ne damay fooye ñàkk gàmm na man damay gàmm de ndaxte dañu xamul luy gàmm ne moo Abdullah ibn Abbas kooku mooma moo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay magal rakk lañ ndaxte rakk la ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam abbas mi jëru abdullah ak yeneen bi alayhi salaatu salaam bàyyam di abdullah ñoo bokk ci benn bàyyi abdul mutalib mooy seen bàyyi kon abbas abdullah ibn abbas frère yeneen waaye mu ngi denc nag benn tantam bu ñuy wax maymuna bintu xaaris maymuna moomu moom ak yaayam bi jur Abdullah ibn Abbas ñoo bokk benn bàyyi Lubaba bintu Haris mooy ki nga xam ne moo jur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moo mën a moo firi laay wii may bëgg jang jàng moo leen ci am ñu si bëri na dañu jàngul rek dañoo xamul alquran wajib ji bëri na waaye dañu dañ dañ wéere na àq yonent bi alayhi salatu wasalaam moo war a wax ne jàmm daal bidaa la sax waaye abdullah ibn abbas nee na qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi zalika falyafrahu kooku alquran abdullah ibn abbas mina ne ah nañ dellu ci ay ay rek mi alquran ويوحنا بفضل الله وبرحمته نكو قاعد فضل كو قال علم موي خم خم برم سبحانه وتعالى عبد الله بن عباس موي فيرنا كم كو موي خبر الامه تي ان تبع عليه الصلاه والسلام موكو جان موكو نيانال ان الله مفقه في الدين وعلم التاويل من واي واي نغي ديبلو دينك te yonent bi alayhi salaatu salaam nee na képp ku ko yàlla bëgg ak njëriñ daf lay déggloo dina ji man yuridullah bi xayri yufaqihu fi diin kon Abdullah ibn Abbas nga mooy biri alquran kooku mooy ibrul umma mooy fóode umma wi وقعب إيرن تبع عليه سلام سلام مكوا كي عبد من هواي هو بيرحم الدين من عير ما نجي الله من عدل دلنا ما إيرن تبع عليه سلام سلام كن القرآن ما يوحني بكي إيرن تبع من عمل الشيء من عكون ند ورنين جام ورنين جام من نات القرآن موني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا واي واي بكل جنون كن mbégteeg yàlla kooku mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam Abdullah ibn Abbas mi naa ah, dara gën ta màgg na rahmatullahi te mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam dara gën koy màgg te alquran a koy yaxal si wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin mi naa alquran a koy yaxal te yonent bi alayhi salaatu wa salaam daan wax ne innama ana rahmatun muhdaatun mi naa ah, man kat may kaddu yërmande woo xam ne dañ maa sànni ci yéen rek mi naa ah, kon man noonu laa mel rek man yonent bi alayhi salaatu wa salaam te Alaaji Abdallah mi nga xam ne mooy baay mooy doom ci moo leen Cheikh Hadji Ibrahim Niass radiyallahu ñi nga xam ne mooy taw waaye ku li xaal am na ay mag yoo xam ne daal ñoo ko fi jiitu woon teel a génn àddina nag waaye man man nañu wax daal Hadji Abdallah daal mooy taawam Mawlana Cheikh gannaaw ba nga xamee ne ay magam jiitu nañ moom nag moo laajoon Mawlana Cheikh lan mooy gàmm kon al mustamil wal mustamiat ci Top Info TV Sénégal maa ngi leen di wax ni jël leen ak information boo xam ni maa ngi ko jëlee ci làmmeñ ak Mawlana Cheikh moo tontoon doomu Haji Abdallah muy interprété lan mooy gàmm mi ne ñu bari dañu xamul luy gàmm rek waaye gàmm du dara lu dul lu dul waxtaan ci diine boo xam ne tataqallaluhul am daa lu dul nga topp ci biir nga def ci ay am daa dugal ci ay tagg mi ne lii rek mooy gàmm mi ne ah gàmm daal du dara illa bi illa hadisun fi diin تتغلغلوا الأمداح من علي غير ميدم ونا المستمعين والمستمع جي انفو تي جي توب انفو تي في سنغال مانغ لين دوكيل بو بات جي تيو نين تيو بور ني واتاني لا اجي تي دم وتون مولانا الشيخ نات موم دان وان لا حر ربيع وزاعت عني الكرب وهاجت تذكار من علت له رتب حب البشير النذير المصطفى وابو ابي ابي الخلائق من زالت في الريب من عمود الشيخ من واي واي لا عفين يا ربيعه من ربيع الاول من عفيرك ربيع الاول دال الفين من قام عمل الشيخ بوير زينة لخو من وزع الدمين عدني كمان الكروب سمن جكره سمن جكره دال دم ومو خلورت ومني الخليفه محمد daf ko tontu nag ne ko ah sama rakk nan wax nga dëgg ndaxte weer woowu noonu ngay wax naan feeñ na man dee faaw rasal qalbu safwan baada ma kadira mi ne waay waay man sama xol wi nag weeru rabiul awwal yi nga xam wax ne daal dafa feeñ dafa demee ceew ak njàqare man dafa donnuloo sama xol wi ak sell gannaaw ba mu nexee man sama xaaji Mouhamadul Khalif yow sama rakk Alxaaji Ibrahim wax nga dëgg gis nga nan mag ñi noonu lañ doon bindaante motax bamu waxe lo rek magam alaaji al Khalifa lo la ko tënk moo tax mi ne fa awrada al qalbu safwan baadama kadira wala la di seex way mi ne ci dindi ak njaqere sama xol yu rek wa aje dafa jekina tazkar man fatu ge xamna ala alal kawen teel a wu ñeel na ko arutoo ba daraja moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ne kooku may kan nag mi ne xib may sama soppe al bashir kooku may begele kep fu ko xamna dal way topp yàlla la mu bégal ko àjjana ba nazir mooy aji xutbe képp ko xam ne daal aji jajjulo topp yàlla mu xupp ko ngir lan mu mën a jajju na dellu topp yàlla subhanahu wa taala ñu ne ko ah koo mooy kan nag ñi nga xam ne albachir mooy an nazir kooku mooy kan min al Mustafa kooku mooy ku ñu tànn ki waaye abu abil xalaayiki mooy bàyyi bàyyi mbindeef yi an saadat bi bi ribu mooy ki nga xam ne moo demee ak sikkinat moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam المستمعون والمستمعات جي تابعين فون تي في سنغال da nga leen di dokkeel bu baax ci mutaabaa bi nga xam ne yéen a ngi koy mutaabaa ak ñun ci waxtaan la aji ci gam waaye nag Mawlana Cheikh dafa bind benn lettre woo xam ne mu ngi koy bind ci fukki fan ak benn ci weeru safar ci la ko bind mi ne maa ngi seede nag di xam la ñu bari ne dañu taxawee wut xaq yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamuñ ko sax loolu moo waral dañ ci si bëri nag minaa ñuy wax naan gàmm nangam laag wala nangam la dañu xamoon xaq yi nañ tubi waaye buñ ko xamoon duñu wax li ñuy wax lépp nag duñ ci wax dara waaye dañ ko xamu nag malgré xamuñ kan mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye buñ ko xamoon nag lu ci bëri nag duñ ko wax minaa xanaa xamu leen dafa am bi ñu ku ñu wax xaafis Shamsuddin Muhammad ibnu Nazir ad-Dimasqi minaa xamu leen bu fekkee ne abu abu lahab alquran moo ko ŋañ waaye xas ko ci surat suratul masad ni tabbat yadaa lahab mi waay waay mi nga xam ni heure bu yawmal isnayni jotee mi ne ah dinañ ko woyofal mbugal ngir kontaan gi mu kontaanoon ci fuway ba eh, mi nga xam ne mooy dëkk mooy jibéram ñëw na ko ah Amina am na doom sa frère wi daal am na doomu góor mi ne waaye mu kontaan ba mu kontaan ba gorel suway ba ne way way kontaan gu gërëm abula ab kontaan non ci juddu Yonent bi mi ne way waay ci len koy fele ak mbugal mi way waay xam ci waa xamne dafa juddu gëm Yonent bi waye di bi nga Yonent bi gamu du ko tiaxane mi kon ko loo lo jéem a xam ci xay ak ngeneelam ak tamin doyam ci mbugal ak bi sallallahu alayhi loo xam ci lolu ko hafis may wax ina ida kaana kafirun jaa زمو بتبت يدا في الجهيم مغلدا حتى أنه في يوم اثنين دائما يخفف عنه لسرور بأحمد فما ظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا وكو حافظ سمج الدين لله من إذا كان بنك هذا كافر ديفر يا عدك زمو أنغانيم غاني القرآن يورا غاني بتبت يدا أبي لهبي وتب ما عنا عنه معدو ما كسب تي موم اج نكل تي جحيم من واي واي اتى عنه في يوم اثنين دائما يخف عنه للسرور باحمد من واي واي دا فاي نيو نات يوم اثنين بو جوت dinañ ko woyefal ak mbugal ngir bég gi mu bégoon ci juddu yonent bi mi naa loo rek moo taxoon ñu koy wàññil ak mbugal ci bés woowu noonu mi naa kon fa maa zannu adalan nga jot bi abdin ci jaamu woo xam ni mi naa lijji nga xam ne tuula amru diiru guddem yëpp na diiru dundam yëpp masrurun aji bég la bi ahmad ci ahmad te wa ba maata mu waxada waay waay dee na ak li nga xam ne mooy gëm yàlla mi ne waaye kon loolu njort ci jàmm woowu kon maa ngi ndokkeel li nga xam ne yàlla may na leen tawféex ba ñu xam day ak yeneen tuuti ba ñoom foo leen toll foo leen fekk moom ñu ngi màggal juddu yeneen tuuti man daal damay wax ni mi naa doy na sama wax ren ma wax ni rus naa ak kersa bu ma jàkkaar la yonentu yowmal qiyaam ma wax ko ne ko man kat daan naa tere sa umma wi ñu bañ ñu ci yow mi ne waay waay lii ren man am naa xeres woowu ba du ma ko def mi ne waay waay keroog yowmal qiyaam daal man a yonent bi man bokkoo naa ñiy tere sa xel wi ne leen bu leen di gàmmu bu leen bégee yonent wi mi rus naa ko xeres naa ko waay waay kon nag nañ xam lan mooy dayeg yonent المستمعون والمستمعات جي تابعين توب انفو تي في جي سنغال ماغي لي ندوكل بو باخ جي وقتان ويغا خمني اي نكو عندك نيون جي وقتان بي وي دامي فاتلي مبوكي مولانا شيخ bu gàmm jotaan nu muy taaroo ak nu muy rafetee ak ni nga xamee ne moom lay am mbégte ci juddu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam يبون يبون كسمي وغني وهل يتع وهل يتأتى حب غير محمد فحب سوى الماحي الأعمى والفسق وقول له من وهل ده يتأتى جندك وبوبك غير محمد كوري النبي صلى الله عليه وسلم من وعي وعي لون تفكي لاج لاج كوكو هل استفهام لا تفكي لاج من عندها نت من نيو دي بق كنن كوري النبي دي برزانتو نمن كت من نابق كنن كوري النبي mu mel ni dafa am ku ko wax ah, man na def naa ko man de bëgg naa keneen ku du yeneen tuy bàyyi ne ko kaw téef foofu ba siwal maaxi al amaayi wal fisqu mi ne bëgg ku dut maaxi kooku ak ngumba la waaye ak kàccoor kooku maw leen mi ne bëgg daal ku dut bi kooku ak ngumba la rek la wax na feneen na alayka salaatullahi summa salaamu fa ayshun biduni xubbin fii ka mudayaun من واي واي عليك هنا نكسي وصلاة الله جليل ثم السلام وأكسل ملم تي القرآن ولي أخلنكم ولن شاء لبنم لغر القرآن فكنا مؤدج القرآن من إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تيبو يلا جلو تنتين انتو درد سوتنا فتون مولانا شيخ دواني عليها صلاة الحق بالحق وهدها لأن لا تكون بطرها من عين مواسل مولانا شيخ من فاعز دند بدون حب julliti benn mbëggeel fii que ci yow yeneen yow yeneen bi kooku dee ma ba yaaxoon dund bu ñu sànkal la bu ñu nenal la boo xam ne bu yàqu la nag mi ne kon nag damay wax na daal wahal yata'atta hubbu ghayri muhammadin wa hubbu siwal maahi al amaayatu wal fesku wax na feneen nag ci mbëggeelam ak yeneen bi jéggi doyo gi mu jéggi doyo tax na muy wax ni widaadun safiyun lam yushab bi siwaa'i fa hubbu siwal maahi dalalin qabiixun loolu la wax feneen mi ne man de cofeel gi ma am ci yonent bi cofeel gu sell la woo xam ne dara raxu ko dara jaxasoo ak moom dafa weex tàll set wecc ba amul benn jax lu mu jaxasoo mi ne waay waay fa xubba si waa maaxi dolaal yi bëgg maaxi mi nga xam ne waaye a effacé ak réer kooku xabiixun ak mbon la gis nga moom foofu la tolloon ci mbëggeelam ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam damay wax day na ret ma indi wax joo xam ne moom رضي الله عنه مكو واخ مولي مو واخني من اعكن لان صدني عن قبر احمد سربقو وما صدني عن شوقي دهر فرسقو خما لولو ديك مبغل يننت بي من لان صدني ديم جار نا من من عن قبر احمد جي قبر يننت صلى الله عليه فرسقون ولا سربقون اي كيلومتر من واي وفكين قبر يننت عليه الصلاه والسلام اي كيلومتر مو دوخ sama digganteeg moom mi ne waay waay da nga xam ne fama saddanii gàllankoorun ma min an shawqi yi ci cofee la génante bi addaru di ta jamono farsaqun benn kilomètre na laa wax cofeel gi ma am ci yenante bi daal moom dara doxut ci nag mooy ki muy tagg léeg-léeg ndaxte wax ne fa ma qattau fi sharqi wal garbi fadfadan ila makkatan illa li chammi zazai ba mu waxee wax jooju nag wax ji kawe na dina am ñenn ñu ko dégg dina am ñu ko déggut mu wax ne fa maa xattoo daggu nat fi sarxi ci penkoog xarboog amul kenn ku fa jugee koo jëm màkk nat loolu man sama xet wi leen la ñooy xencu nat wax jooju du ñëpp ko mën a dégg waaye damay wax ne rek ñi nga xam ne ñoo nekk ci connexion bi bu fekkee ne da ngay am looy téléchargé te yaa ngi connecté Tigo wala ngay connecté Expresso ak yi nga xam ne dafay connecté li nga xam ne mooy Orange du ñu doon benn seen téléchargement yi dafay gaaw mi bu fekkee ne sa téléchargement gaaw nag بليه دكان يدل تبوك من عمولنا الشيخ منه لورت لي واتي دغربيني ولم لا بركواسا وعين اليوم عين محمد سراسر في هيكلي وروائي من عم بركواسا لا تجمي تاي سمو جمك محمد وولي من عم كنت كون يد مكه كنتور كنو من رلا ني كنتو دانا تاخو تي عرفه دي وخني وقفت يوم الثلاثاء بعرفه اذكر ربي عبدي اذكر عبد ربي ذكر عبد عرفه أو كما قال من واي واي وقفت يوم الثلاثاء بعرفة ما يتغو بزك مردي كعرفة واي ما يتدوك tuddi yàlla tuddug jaam bu xam boromam mi na ci loolu laa nekk nag kon maa ngi foofu noonu ci arafa kon ñu ngi ci waxtaanu gàmm lu ci ak tamit ngi ne lu gàmm ak Mawlana Cheikh li muy soññi nit ñi pour ñu jéem a toppatoo li nga xam ne mooy gàmm radiallahu anhu kon al mustamir wal mustamaat ci Top Info TV Sénégal maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ndokkeel bu baax ci déplacement bi nga xam ne yéen a ngi ko déplacé ñëw ba ci ayu Faché Amadou Tidiane 2 ngir ñu bëgg a fàttali leen ci ay mbokk li nga xam ne mooy gàmm ak Mawlana Cheikh naka la doon dundee gàmm incha allahu maa ngi wax ne daal na ñëpp bàyyi xel dellu jëm màggal yi du Yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne man de. gisuma kenn koo xam dafa ñàkk wala mu am gàllankoor wala mu am rafleek paas ba mu wax ne du ma dem gàmmu ji ren bi naa ah loolu mu tere kenn ñàkk gàmmu ji ren yéen ñëpp dem leen gàmmu ji ndaxte bu ngeen taxawee ci buntu yeneen bi tey mooy buntu yàlla mi ne kon amaan na seen yëpp dina faju ndaxte mooy buntu yàlla ndaxte imaamu Junayd la ko wax anta baabul ilaahi ay yumri in wa afaaka min xayrika laa yadxulu alhamdu awwalu daawaana wa axiruha walhamdulillahi min xiin ila والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته